rahmatullah waaw ah, maaleykum salaam champion ba Faye ziar nañ waaw ñu ngi leen siyaar bu baax a baax a baax di siyaar waa mbokk internet bu ah, Mbine Yalane yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi leen di bégge baax a baax di siyaar adduna di siyaar supporters yi fu waay mun a nekk daal aa aja tey ñu gis a arène nationale euh, mën nañu xam exactement lan moo waral teewaay bi waaw waaw xam nga ñun moom li may wax rek làmb suñu deret la ba pare teg ca en plus tamit suñu benn waay di bëre ndukumaan bokk ci écurie Dóor Dóoraat bi ñu noom comme am na taxawaay bu taxawee ci école bi kon mbër boo xam ne dafay bëre rek ah buñ ko mënee dinañ mën a ñëw taxawu la bon di ñaar yàlla may na ndam quoi vraiment loolu lañ fi ñëwee quoi. <laughs> yéen bokk leen ci champion nga xamante ne bu seen boy di bëre ci entraînement rek ngeen sax amoon quoi mais stade fa ñëw bokk leen ci genre mbër yooyu. non non parce que am na xam ne dafa ñaaw yow munoo di nekk boo amee combat booy duñu lekk du naan duñu nelaw fajar gi ñoom sax ñoo lay yee di la jël si kër ga. di ànd yow ngeen di dem di entraîné kon ñoom bu ñu amee seen bës dañ leen ak ndaw muy yóotu benn affaire di ci dem yow boko joxul ay million tamit bu amé lamb ñëwal jëmmal ko quoi nga jappalé ko te parce que lool lool rek nga ko mëna dimbalé ci bëssam dal vraiment. kon nu ngeen ko nu ngeen ko indé tay préparation ba ki bi yaakaar naa ne tey moom professeur mën na wax ne léegi affaire bi gi lan ngeen ko envelopper pour indi ko tay waaw mom mom vraiment li ñëkke ci mom moy mom athlète la parce que mi ngi suivre ben ben ben sport bu tudd MMA mi ngi top MMA bi té mi ngi def presque mëna na ne xex mom moom du naqaree cadré bëri bi machallah allah na ci du ci gan quoi kon. li war ci entraînement lépp lépp taxawul nañ ko ko li ci des daal mooy fi mu ne nii ñaata yàlla sunu borom li naan mbëru làmb da def li nga war a def lépp après nag dugg ci biir géew bi yaa jël say décision ndam nag décision yàlla sunu borom la mais li nga war lépp li mbër war a def lépp dinañ ànd ak yow pousser la pour nga def lépp suñ ñëwee taxaw ñaan yàlla pour peut-être may la ndam quoi vraiment mi MMA mi ngi MMA vraiment ku ci na sax vraiment ku ci xarañ ci MMA beeg yooyu loo xamante ne ni boo loo ci wàllu sport rek amaana boo kiiwul di nga ci dugg daal di nga ci dugg parce que affaire sport la rek man dama gis affaire sport la rek quoi vraiment yaakaar ngeen ndam tey waaw waaw tey moom vraiment ñi ngi confiance bu baax a baax yaakaar naa ne suñu borom danu may ndam daal di ñaan yàlla defal ñu ndam Boy Fall fu mu waaw instant bi macha allah nag ñi ngi si suñu entraînement macha allah affaire yëpp wér na dal jàmm ak tamit yi ñu nekkoon waaw di ñaan suma yaay suma papa fañ tëdd gën a leen fi ñu jóge ci barki Seydina Mohamed waaw ak mbooleem way jur buñ fa fekk waaw ñi nga xam seen wayjur day dund yal na yàlla guddal seen fan wayjur bu baax a na ndax wayjur dafa fort ci doom daal di ko ñaanal àdduna yëpp waaj nan ñi ngi ci kawam ñi ngi waaj lépp ñi ngi waaj lépp fayee ngi waaj lépp daal nga jógee nga jógee ci blessure def sa premier xam nga sa deuxième sortie am drapeau mais loolu ndax yomb na non yombul yombul ak tamit moral bi ñu nekkoon baaxul woon mais man bi moral bi ni ñëw ndànk ndànk dama nëbbatu entraîné nëbbatu liggéey am na làmb lépp dëgg de ñu naan la ay ñaan wala dara mais entraînement mooy première confiance mental faire Sénégal boo fi nekkee même soo doonul mbër il faut lekk nga am mental faire pour nga mën a atteindre say objectif di Sénégal loolu moo ci ne ko léegi fa dool ci combat yi nga amagoo combat am de waaw ñi ngi dox lamb yi nag ñi ngi dox lamb yi mais sotteegul quoi ngeen bëgg ngeen ñaanal ñu Sénégal ñaanal ñu rek suñu borom la mais euh, Boy Faye ak équipe nationale ah. lan moo ci diggante waaw bi équipe nationale leen la rek ay performance la rek boo xoolee sax ren li gën a tax affaire demee noonu mooy bi ñuy dem Niger boobu fekk na xam nga maa ngi woon ci wéraguma boobu maa ngi woon ci médical bi ma nekkoon wéruma compétiru ma te mbër bu compétirul kenn waru ko yóbbu ci benn compétition man damay wax ne compétition ku ko amul kenn waru ko dugal fenn parce que sportif au niveau pour ñu yóbbu la dafa war a fekk nga mbër boo xamante ne da nga nekk ci compétition compétir ñu xam ne apt nga pour def li la Sénégal soxlaa man loolu laa gëm t compétiru ma ñetti laa bëre kon aw ma pour dem bëre waaw mën nga ñu mën nga ñaata yoon nga dem drapeau euh, kii tournoi CEDEAO bi mën nga a rappeler ñaata yoon man dem naa dem naa Côte d'Ivoire dem naa Burkina def naa CEDEAO Sénégal jël nañ tamit drapeau chef de l'État Sénégal waaw mën na ne daal bu de comme trophée bu demee noonu ak yu demee noonu moom roi des arènes la xëccoo fi mu ne Sénégal quoi <laughs> waaw. ñu xool Sénégal parce que bokk na ci meilleure équipe Afrique laay wax. Ah. mais lan moo tax ba tey Sénégal mënagul dem ci compétition internationale comme champion du monde mënagul faa dem ba léegi lan moo waral loolu. waaw loolu laay wax rek maanaam nañ ñu yokkal moyens yi nga xamante ni moom la suñu athlètes yi di préparé te ñu leen di yombalal génn dem entraîné bi ci biti. parce que boo xoolee Nigéria ak yeneen dëkk yeeg yeneen dëkk yi seen athlète yi boo gisee maanaam sport yu mag yi compétition yu mag yi ñu ciy dem dañ leen di yóbbu Ah, dañ yóbbu fu ci mel ni Paris ñenn ñu leen feneen ñu def fa seen i préparation yoo xamante ne ay nit ñu xarañ ñoo fa ne ñoo xamante ne nii ay coach yu aay lañ mi ñoom ñooy fay loolu jël leen jël leen en charge ci lépp ñu jàng li ñuy jàng ñëw ñu booleeg suñu coach yi ne fii bu fekkoon ne loolu ñu ngi ñu koy defal am na yaakaar ne compétition bu dem ci wàllu bëre tapi yi def yëpp yëpp dinañ ko mën a te am naa yaakaar ne médaille d'or yi nga xamante moom moo ñu tëwoon ci yu demee noonu dinañ ko am dinañ ko jël quoi man xamante ne gars ñu dem Eh, yóbbuñu coach yóbbuñu arbitre ñu directeur technique ba am na benn mbër bi ñuy wax Yamou bu dañ ko mujj a ne sax ci benn ay grammes yu ndaw ci poids ndax loolu yoon non loolu moom damay waxaat toujours ne rek coach bi fa nekk euh, ci traditionnel bi sama grand sama xarit ba ñi nga xamante ne Sabel ak ñeneen nga xamante ne ñoo nekk foofu euh, ci ci ci ci ci tapis beeg yooyu loolu moom dama dañ ciy waxtaanaat waa waa waa waa bureau CNG dañ ciy waxtaanaat ak ñi nga xam ne ñooy fédération sport bi nga xam ne ñoo yor kii bi ñu jox leen matuwaay yi nga xamante ñoom dañ koy soxla ak taxawaay yi nga xamante ne dafa war ci ñoom pour sunu yooyu bañ di manqué parce que benn athlète warul génn sa u dem sans Odaaka nga ànd ak sa coach sans Odaaka nga dem ànduloo ak say médecin ànduloo loolu du affaire de professionnel te Sénégal ci wàllu sport ñun romb nañu foofu quoi waratuñu toll foofu dañ war a dépasser niveau boobu sur le plan sportif surtout lutte lutte moom doon nañ ci loo xamante ne nii saa bu ñuy ñëw dañu war a ñëw 100 pour cent complètement lépp war a mat te buñ ko tegee ci yoon jaar fiñ ci war a jaar def liñ ci war a def médailles yi ñu tey yëpp yëpp yëpp ci jeux yu mag yi am naa yaakaar ne dañ ko dugal waaw. ñu gis euh, équipe nationale en général ku ci dem compétition internationale boo ñëwee ñu ngi fa bay sax ñu la ëpp xaalis loolu loo ci wax. waaw loolu benn affaire la boo xamante ne ni damay gis ne après euh, ñi nga xam ñoo yor fédération sport bi rek ministère sport bi moom moo ci war a xar tànk tubayam xam ne maanaam ñun ñëpp ñoo bokk drapeau bi ñuy xeex quoi. Sadio Mané drapeau boobu muy di ko yóbbu boobu la drapeau bu la ñoom ordinateur porté moom la porté moom la rëg moom keneen ak keneen ku fi jaar ñoom Omar Diouane kooku daa sol ay médaille ba doo gis baat bi ku ci mel ni Serigne Diagne ñaan ne ñun yooyu lañ porté woon maam nañ ñu jox li ga xam ne mooy suñu wàccuwaay li ñu moom te ci deuxièmement ñu valoriser ñun ñu gën ñoo ñu gën ñoo valoriser ci làmb quoi ci wàllu lutte bi ñi nga xam ne ñoom ñooy porté drapeau réew mi di dem quoi man yaakaar naa ne loolu mooy waral mooy waral ku ñëw soo soo waree demaat di dute yenn affaires yi parce que joueur Sénégal boo gis club bu mu mën a nekk mi ngi rêvé football ci équipe nationale bu Sénégal kon mbaru bu nekk Sénégal da ngaa war a rêvé bëri bu Sénégal parce que lim lay may moom mooy daf lay may opportunité yoo xamante ni soo demee ba jëm mag suñu laajee sa doom bu la laajee papa loo jëlee équipe nationale nga woon ko médaille woon ko kër ak leneen ne ko lii national moo ma ko defaloon sa baay bëre woon na ba tolloon jox ma ne ma demal nga dem xeexali sa def ci ay ndam man loolu laa gis quoi vraiment

ñi wara a wax waxuñu parce que xam nga ñoo waroon a wax ñi porte drapeau bi di dem ñooñu ñoo mom wax ji parce que at lu mën di doon balé dor lolu lolu sport bon individuel la sa yeufu bop la da ngay gagner def sa poste ñun bu ñemee di xex réew mi lañuy xexal kon tay ji ni xoolal suñu papa amra sa gannaaw la togon te waroon naa bokk ci tok ci kanam paa bi 25 ans yaakaar na la def ci la def ci équipe nationale bi kon bu fekkee ne dafa lamb ba dafa bàyyi euh, ki bi coaching bi di génn dañ ko wara a grand porte rekkal ko junjun defal ko lu rëy rëy rëy ba pare fonk mbëru simple yi xam ne maanaam lamb cosaan la cosaan mu ñu ko waxee ci séeréer la njëkkee waaw lamb ci séeréer kon tey jii nii maanaam nañu honoré gars yi jox leen cër bi ñu moom maanaam promoteur simple yeeg mbëru simple yeeg amateur simple yeeg ñu xam ne dañu yow mosoo dégg lamb simple bu toj dañoo xeex toj lamb ja mosul am kon tey jii nii bu dee discipline ak yar séeréer ku koy ëpp ku koy ëpp yar bëriwul ci xeeb yar ak teggin la ñuy toog nga xool ñaata personne ne ci làmb ji du am sax ay policier ñu bëree ko ba làmb ji jeex doo gis moos benn dara naaw dañ koy bëri ci fair play ki daan daan ki daan ñu dem ñibbi xam ne daanu na quoi nañ defaat nañ nañ nañ nañ defaraat affaire yi waxtaanaat defaraat rang yi mu jub ñu xam ne ñun ñëpp benn lañu ku bokk ci euh, gerte gi naan ci meew mi lamb yëpp benn la mais rawatina li nga xamante ne mooy traditionnel parce que ñun ñooy en activité chaque semaine da ngay takk sa sër bëri kii lamb bi trois mois la koy préparé kon war nañu jox suñu wàccuwaay quoi war a xoolaat lamb ji gën nga encadré waat ñi nga xam ne ñoo ngànk sebal gën leen a tegaat ci yoon quoi

Bérama avant muy doon su nit rek la jëlul nit rek la indiwul Sénégal médaille bu ne da jël xam nga dañuy jël loolu teg ko ne ñu indi at yi mu def pour ci ci ci équipe nationale bi. kon maanaam moom dañ ko war a beral loo xamante ne nii dañ ko war a médiatiser adduna yëpp xam ne kii dafa am lu mu def Sénégal président bi yëkkati lu doon teg ko ba jàppale ko ci lu bëri xam carrément ne kii dafa am lu mu defal équipe nationale bu Sénégal nañuy def noonu suñu njiit yi nga xamante ne ñoo yor national bi. muy coach bu mu munti doon ñu nga xam ñoo yor national nañuy fexe nañuy fexe ku ci dem ma jël nga retraite no vraiment ñu lay honoré quoi ndax bu bu sa njaboot ji la doon tere loolu noonu monde boobu noonu monde lutte boobu wala monde football bi wala monde ñu xam ne ah suñu waajur la woon de ñu koy wax bàyyi li bàyyi lu jot yomb ñu xam ne bañ ba mu ba mu ne day bàyyi dañ ko honoré jox ko lu seddu xol jëmmal ko ñu xam ne yàgg naa teewal drapeau réew loolu laay ñaan quoi na ñuy def loolu. ñu gis euh, équipe nationale football. bu demee ba ñëw teetu bi presque spécial lay doon te man dama jàpp ne drapeau Sénégal drapeau Sénégal la rek ren gars yi dem nañu Congo ben indi presque treize médailles parce que ci biir euh, compétition bi neuf équipe la ñu yóbbu woon mais bërëb bi moo indi moo indi treize médailles treize médailles la bërëb bi indi donc médailles yooyu sax yaakaar moo tax Sénégal jël quatrième te nga xool ban heure la ñu egsi fii presque xaaju guddi ba xam mais loolu du yoon benn loolu du tay de ñun bi ñu jógee sa francophonie ñun boobu noonu douze médailles d'or la ñu amoon Sénégal bi mu jël troisième ñun ñoo taxoon mu jël cinquante trois pays la woon loolu du tey de loolu xanaa tey la tey la yi jot a gis ñu jot te boobu noonu la fa demee woon ay double médaille d'or la gars yëpp lonko woon indi ko fii Sénégal ñun bëccëg lañ ñëwoon te ba ñuy ñëw yenn gars yi taxi lañ jëloon ma samay mbokk ma jël si indi oto bu rafet ma dugg ci dem waaw parce que jëmmal sa jëmmal jëmm ji demoon la rek waa mais lenn moo ci nekk mooy dañ leen waroon teertu dañ leen waroon taxawu parce que dafa am loo xamante ne bu ko doomu génn defee même su nekkul sax même su nekkul sax question da bon question de euh, Congo boobu noonu doomu réew mi ku ci génnati nga xam drapeau national bi nga yor loo jëli ci biti boo ñëwee war nañ wut ñoo xamante ne dañ leen di defal ñu bokk ci monde boobu ñu lay tertu wane ne bég nañ ci li nga def andi ci ak yow kontaanee ko mu may ko confiance ba pare boole ko daal di doon lu neex ci xolam parce que loolu la ci am moom loolu la am gars yi bu ñëwoon fekk ñoom loolu lañ ci am. waaw moo tax daal ñuy wax ne daal bu ñu taxawaatee ba defaraat structure bi ñuy def nañ gën a waat valoriser waat làmb ñu gën a waxtaanaat ñu honoré gën a defar améliorer ko gën ko defaraat ba ñëpp mën ci gis seen bopp ba benn muy simple muy olympique muy keneen bu ku fa dem du gis ne maanaam bu ma ci demee ba ñëw ak xeebel laay gis dama bëgg bu ñëwee ñu gis ne bi ma demee ba ñëw yokkute laa gis mais bi ma demee ba ñëw gisuma ci xeebel loolu daal laa bëgg ñu gën a encadré waat affaire yi gën ko defaraa waaw di ñi nga xamante ne ñoo bokk nekk ci monde làmb bi yëpp wax nag yombul day nekk ni waxtaan bu jotee day am loo xam ne koy génne waxtaanee ko nga xam ne maanaam dina bokk ci tomb yoo xamante ne buñu demee ba koy waxtaanee dañ laal ci côté boobu quoi vraiment. waaw lu duuf ci nag bi xam ne ci jën bi xam naa ne foog ñu c'est la spéciale. waaw waaw gën a yaatalaat. non non la ñu marché poisson maa ngi leen di béggee sama mag yëpp maa ngi leen di béggee ñi nekk France ñoom Pape Bousso ay ñoom euh, euh, Ibrahima Niang Alain Ngom mënu ma fay daal mënu fay gaa yëpp Doudou Faye Séeri euh, Séeri Fatou Diop mënu koo fay ak soxnaam yëpp maa ngi leen nuyu daal vraiment li ñu nekk daal moom mooy ñi ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu waa Saalum Kër Mangu Jaaw nga xam ne sama yaay fa la dëkk waa Touba Mouride waa Fatick waa Mbelgoor sama mag sama lépp taxaw na ma fu ma papa di taxawoo lépp mu ngi koy defal barke arxuraan seetaanu ma ci dara du ñaan kese du dara lu ma métti lu sama bët xonk mu taxaw ci aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax ak oustaz borom njaago ji la xaar ak sa benn papa moom du ma tudd turam nag Faajub la dëkk xam naa xam naa maa ngi koy bégee bu baax a